opposition ak pouvoir ak ñi and ak ñoom ñu yëg responsabilité Sénégal la d'abord Sénégal la d'abord Sénégal nag gannaaw loolu la di di génn ay wax yuy merloo nit di génn wax yoo xam ne amul sens amul benn maanaa pour merloo nit génn ko ci sagoom loolu bokk teg nit ñoo xam ne dañoo civiliser bëgg a tabax seen état parce que état kenn du ko tabax ci foraatu kenn du ko tabax ci ay caaxaan kenn du ko tabax ci maa gën a ñaaw làmmiñ ma gën a rëy làmmiñ maa gën a gudd àlluwa loolu yëpp du état état volonté euh, nit la nit ki moo am volonté dama bugg a def lii looloo ko mayoon Omar ibnu Xattaab radiallahu anhu jàngut jàngut amuñ xam-xam yi ngeen ah. waaye état bi tabaxoon ba léegi booy seet ci àddina bi dañ ne mooy sixième euh, pouvoir boo xam ne nam maandoo woon nam woon ba léegi gannaaw moom gisaguñ bu àgg foofu ci kawe ak baax te kenn du wax ne so Sorbonne la génne wala euh, euh, wala fii la génne wala fii la génne benn nit bu naturel boo xam ne xam ne yàlla